Karim Meïssa Wade génn ci pat pataral gi mu nekkoon bañ ko yóbboo ca duwaa ba nëga ni ginnaaw bu mu génnee ci kaso bi def ci ay at te nguurug Sénégal amoon ak moom ay jafe-jafe ba dugaloon ko ci biir kaso bi ci ay weer ci ginnaaw nag moom Karim Meïssa Wade daan jëfandikoo lu jëm ci wàllum bind tey ji de nag lu yées démb ca guddi ak nëga ni mu daal di def ab audio boo xam ne nii ma ngi ko daal di envoyé ci bépp organe de presse boo xam ne ni yaa ngi ci biir réew bu Sénégal ci boobule audio nag ma ngay fësal yorin wi nga xam ne nii jàpp na ni président Macky Sall da ko yor mi tam nekk yorin woo xam ne yorin bu xaw a takk suuf la ci fësal xalaat. waaw boo ko tegee ci communication dangay ngay xam ne Karim Wade mi ngi def ay pas premièrement da daan noppi te ñëpp xam nañu communication noppi da caa bokk daf daan noppi su dee noppi ba si ak muy bindi ay lettres te à chaque fois dafa daan xool daan toog 3 mois 4 mois soo ko bind lettre su bindee lettre coow li nekk ci loolu mu noppiwaat kon tey bu ñu déggee démb audio muy pas bu important boo xam ne da leer ne kii am na lu muy préparé xëy na nag fa jëm moom waxagu ko xëy na euh, doon nañ ci séddu aussi mu wax olof mais aussi loolu stratégie de communication la mën nañ ko koo comprendre. bon juste pour euh, discours Karim Wade bi Karim Wade il a il a fait que fait un bon discours il a juste fait un bon discours donc euh, d' accord description bi mu def ci situation politique gu réew mi d' accord nañ situation description bi mu def ci situation politique gu réew mi wax na dëgg waaye moom aussi il a fait que fait un discours loolu du lu mu sentir moom parce que depuis quand Karim Wade à l'extérieur du pays à l'extérieur du pays donc kon kooku amul sentiment wu li muy wax donc Karim Wade affaire am mooy il doit il doit revenir au Sénégal il doit retourner au Sénégal pour mener son bu ñu sukkandikoo ci yenn farandoo Karim Wade yi ñu ngay fësal ne jamono ji tiital gi nga xam ne nii nguurug Sénégal mi ngi ko koy tiital jàpp ne bu dellu see ci réew mi dina ko dugal ci kaso bi loolu le dara du ci am mën naa ñëw ci réew mi ànd ak waa réew mi xeex combat bi daal di nangu nguur gi daal di dem ca palais de République jiite réewub Sénégal. ñu ngi koy rafetlu am yaakaar waaw loolu lañ gëm waaw xëy na ñi xam naa naan coow ni naa bu ko neexee mën naa ñëw parce que ñun ñëpp pare nañ di ko xaar te jàmm rek lay am bu dikkee allah rabbi candidature Karim Wade loo ci a wax moom loo ci mën a wax mu wax dëgg yàlla problème bu mag a mag mag lay doon moom. en tout cas en tout cas par rapport ak ak ak avancée bi mu def démb mooy ci discours bi am nañ yaakaar que ne war na mën a ñëw dañ koy appelé aussi tamit ngir mu ñëw ngir loolu muy guerre daf daf dafa dafa war a ñëw. ci biir réew mi ànd ko ak ak réew mi donc dañuy engage dans un combat mais aussi tamit soog a poussé nit ñi donc moom combat boobu muy woote souffrance bi Sénégal yi nekk moo moo lañ jàppale dafa war a déplacé wu moom ñëw ne nekkal leen ci. loolu moom amul solo man Karim li ma koy conseillé di ko ko digal mooy candidat bi ñun parti démocratique Sénégal ñoo ko ko def congrès samp ko waaw li ñu koy digal mooy bu am lenn lu muy tiit na ñëw incha allah ñu teeru ko ànd ak moom jàmm rek la siy am daal man daal li nit ñi wax daal man gisuma ko ay bu dikkee ñu deewaat ko loolu gisuma ko man. waaw fulla ji nag mooy coow li bëri na na ñëw rek dugg Sénégal. Ah, loolu de jërul kenn di ci inquiété wu ndax moom réew mi moom kuñ koy jox da ngaa war a xam li waa réew muy dund am ci yëg-yëg koo xamante ne nag moom xamaguñ ci li nga nekk mën a goo posé candidat moom. say wax warul déranger kenn. bu ñooñu jàppee loolu ñu ci des jàpp ne Karim sa wadd li muy def du ko yóbbu fenn toog ca dowa di bind ay lettre ak di envoyé ay audio loolu lee mënu koo tax mu gañ a combat bi nga xam ne nii jàpp nañu ne dañ koo teg ci ay waggam muy jox ko li nga xam moo di coalition Karim président 2019 li nga xam ne ni moom la war a def nag ñooñu la jàpp nañu ne moo ñëw ci biir réew bu Sénégal ànd ak opposition bi daal di xeex ba jot ci nguur gu Sénégal mën na nekk mën na nekk ndax aussi boo fekkente ne da xam jaar jaaru Karim Wade di nga xam ne mën na nekk président ndax au moins moo nekkoon ci au cœur de l'état xamoon na ni xamoon na bagage yëpp ni muy demee kon nekk président du jafe ci moom te am na avantage boo xam ne ñu bari amuñu ko mooy am na benn appareil politique bu mag mag bu diis bu structuré bu an muy PDS aussi am na te seetlu naa ni fan yi boo xoolee seen plateau télé yi ñuy dem ñoom ñëpp ay xale moo ciy dem kon am nañ ñoom même buñ am nañ li ñuy préparer daal bu fekkee ne te aussi am na expérience bi am na expérience expérience bi yàgg na ci millier business bi ah mën na nekk mën na remplacer le président Macky Sall bu fekkente ne sénégalais yi ñoo koy décider daal. xam nga tey nga doon ma neexul man maa lay doon moo neex bu taxawoon taxawaayu boppam li mu doon xëy na góor gi du ne ko yaa may doon. ndono ba la muy neex nga mat li nga doon taxawu ah yéen naa ko lool nag mais instant bi moom bu doon 10 pour cent la moom perte na 8 pour cent bi xanaa ñu ànd ak dal am ak taalibe te xam ne àddina bi ñu ne lu fi waay di rek te du taalibe yàq na ko Sénégal population bi li ñu war a taxaw mooy dañu war a ci mu conscientiser leen ci ñu xool xam ne maanaam euh, depuis 1960 ba tey ay politiciens ñu ne daw def ay discours te aussi ba léegi ñoom ils n'ont pas fait une grande chose donc c' normal moment bi ñu débarrassé wu ce système politique là ñu sanctionné tout ce système politique sanctionné tout ce système politique nag c' est pas sanctionné le pouvoir mais le pouvoir et l' opposition ñoom ñu fi nekk di daw ñëpp pour peuple bi peuple daf daf daf dafa war a jóg san sanctionné leen peuple bi aussi tamit dafa war a jëlaat mbir mi jë jëlu ko boppam téyal ko boppam parce que yëfam la te ñi muy jox état bi moom moo leen koy jox pare te yëfu yëfam la leen jox donc kon c' est fi mu ne nii peuple bi jëlal boppam mbir mi gérer ko boppam gëm boppam tax taxaw taxaw ci mbiri boppam te mooy ci te xam ne ñii moom ñi xam te ñoo nekk daf teen discours yi daw ak i kaat kaat rek du du yàgg yàgg bañ soppi réew mi seen bopp képp moom moo leen ñor donc c'est normal ñu jëlal seen bopp mbir mi gérer ko seen bopp rayante gi ñuy rayante ak topp ci ginnaaw politicien ak a wax loolu amul benn njariñ te du leen yóbbu fenn ak lu ci mënti am xalaat yi wuute na ci li nga xam ne moom moo di audio bi Karim Wade daal di def ci réew bu Sénégal envoyé ko di ci fësal yorinu réew mi waaye itam di fësal ne li nga xam ne moom la ñu ko dénk ni di coalition présidentielle Karim 2019 loolu lee war na koo mën a yore bu ñooñu jàppee loolu ñu ci des jàpp ne Karim Meïssa Wade daal jamono ji ay loxoom taq na loolu suuf te itam nguurug Sénégal duñ ko bàyyi benn yoon yoon daal di ñëw daal di amal lim li mu bëgg ci ni mu ko bëggee élection présidentielle atum 2019 bi ñu dëgmal ci 25 février